You assalamualaikum wa senegal man ablay Fall maw ma ngi len di balu ak di len nuyu di len tan di len encourager aussi ci koor gi di len gërem di len sante di len def ay salutations républicaines waye tay nak man très sincèrement je suis en colère contre mon état et ma république même au mon président de la république parce que dama gëm ni li xew ci semaine bi te yag na fi am yag fi am té dina amat

te objectif bi mooy mu soigner nit ñi waxuñu nit nit du dee waxuñu ko mais yàlla minimum il faut que ñu respecter sénégalais yi amul benn hôpital booy dem fii ci Sénégal amul boo xam ne médecin de garde bi fa lay fanaan médecin de garde bi seen kër la ñuy fanaan su urgence amee man man leen ne woo ñu ñëw mën nañu bañ a ñëw loolu bu fekkee am réew la ñu nekk am président boo xam ne bi jël na ay di def ay contrôle externe parce que contrôle bi nekkatul médecin ak médecin parce que ñoom dañoo am ay solidarité

ma waxoon demandé président bi nga xam ne ñun moom la ñu fal moom la jox réew mi jox ko suñu budget jox suñu lépp jox ko suñu commandement jox ko lépp mu boo xam ne bii externe la contrôle externe lay doon mën nañu bañ a nekk ay docteur mën nañu bañ a nekk ay médecin mën nañu bañ nekk dara ay citoyen ay intellectuel citoyen ñu am fulla am fayda nekk ci réew mi xëy dem ci hôpital bi xool ba xam médecin bi mi ngi fi wala nekku fi xool ba xam liggéey bi ñu koy def ci yoon wala defuñu ko ci yoon mais jox nit ki amul benn contrôle kenn du contrôle kenn responsable kenn amul responsabilité da ngay ñëw weeru dem nga dem rang jël sa xaalis dem ñibbi sa kër yor sa njaboot mais ñun fu ñu jëm yor état bu mel nii lii fi xew na état bi da ko war a àggale suuf su li xew li xew Louga c'est extrêmement grave xaw na fi tuubaa xew na fi feneen ak feneen xew na fi dakaar xew na fi Thiès gii ñu kon année bu nekk ñuy dox ñàkk hôpitaux yi hôpitaux yi hôpitaux yi te dañ leen fay suñu xaalis ku ci mënta liggéey na démissionné boo demee médecin yi doo leen fekk seen bureau yi doo leen fekk seen centre yi benn médecin du passé la nuit ci hôpital bi ñu ne médecin de garde professeur doo danga de professeur boo ko soxlaa ay weeri weer da ngay daw ci kanam doo ko jot te weer bi ñu fay ko ñoom ñu ñu nekk di xarmat rek lañ fi nekkee dem ci hôpital hôpitaux privés yi foofu la ñuy liggéeyee même foofu boo leen fay du ñu ñëw da ñëw tiim benn médecin kii ñu la kii boo ma fayul du ko opéré mu nekk en phase de déclin ñu xam ne kii day buñ ko opéré day dee ñu ni boo ma fayul cinq cent mille wala un million du ma ko opéré waaw état ban ban lañu nekk ban réew la ñu nekk dem ba tey li fi war na gën a baax moo fi gën a bon li fi war a na gën a baax ñëpp yaakaar ci moom muy médecine tey moo fi gën a bon tey ñoo xam ne amuñ benn conscience professionnelle amuñu conscience citoyenne amuñu conscience humaine lu leen neex la ñuy def état bi bàyyi nañ ci Macky Sall bàyyi nañ ci parce que bu ñu nee Macky Sall mooy état bi suñu ba nekkee ba nekk ne nous avons un état politique lepp ñu def politique la médecins yi li ñu nekk du deug du yoon sa famille li ñu nekk du deug du yoon du deug du yoon ñi léegi ci hôpitaux li ñu def li deug du deug du yoon ba paré président bi xam nako ko Macky Sall xam nako pourquoi du leen sanctionné erreur yi fi am du di erreur sax ñoko tay ñoko def siama erreur moy lo lo def da ko def te ko mais li ñoko def siama man nag dama xamul suñu Sénégal gii fu mu toll fay fii ñu jëm amatul conscience professionnelle amatul éthique morale amatul dara amatul déontologie amatul ku nekk lu la neex ngay def ñu bàyyi président bi rek mu continuer nii du sanctionner kenn tey jii lii bu daleen ci boppam dina jël responsabilité bi bu daleen ci mbokkam dina jël responsabilité bi te moom ñëpp ay mbokkam lañ war a doon tey jii léegi dans trois jours quatre jours ñëpp fàtte ko ñu toogat fi mois quoi mu amaat du ñu sanctionné kenn di leen fay suñu xaalis ah ñuy dem di xal seen matt yi dem ci hôpitaux hôpitaux hôpitaux kii hôpitaux euh, privé yi di fa liggéey bàyyi euh, état bi mais lan mooy état nañu jàngat lan mooy état d'abord boo nekkee fonctionnaire da nga war a nekk da nga war a am personnalité war a ne am dignité am fervent bëgg sa réew loolu mooy fonctionnaire mais fonctionnaire boo xam ne da nga xëy di mat suba ba ngoon nit ñi yaa ngi dee ci hôpitaux yi dee yoo xam du yoon bien vrai que matériel bi matul dañu waxante rek dëgg d'accord naa ci loolu plateau yi mom sont des plateaux très baissés très baissés plateau yi mom sont des plateaux très baissés très sincèrement rien parce que suñu bise bi am ci ci médecine mo touti coronavirus rek jàppale ñu bari bari am na yeneen fi indi mais dama ni tuuti na formation bi kenn duñu amul ndax formation bu bex lañ leen bu bax lañ leen formé mais buñ la formé ci formation du bax nga bëgg xaalis nangu leen nek un commerçant gaña gaña rek nga bëgg bu ko fa nit ñi te liñ leen jangal li nek ñom liñu signé ñom liñ leen jangal réglement intérieur bi am hôpital yi yi ak li ñu leen jàngal bu ñu ko defoon ñuy dee waxuma kenn lu dee de l'homme se l'homme se découvre quand il se met avec l'obstacle celui qui vit sa vie communique sa mort da ngay dee dañuy dee par force yàlla rek la mais nag man dee am na dee yoo xam ne ci médecin médecin yi ñoo koy def ils sont responsables parce que négligence la bu ñu sance négligence négligence la ñoo koy tey avéré ñëpp xam nañ mais lii xew lu ko tey dañuy xaar na ñoo ki xaar mi ministre bi ko muy wax yónnee ay yooyu amul benn sens

di ñu ñim ñi tànnale euh, njiit yàlla tànnal ko nu njiit njiit bu am fulla am fayda am ngor boo nee njiit nag nekkul ci Macky Sall rek directeur hôpital njiit la médecin chef njiit la euh, infirmière bi njiit la infirmier bi njiit la sage-femme njiit la njiit lañu ku nekk njiit la ndax xam na koo jiitu yàlla ay njiit lañ tànnalagul te nag war nañu dim ay njiit nañu aidé nag tànn ay njiit yu baax ñu am fulla am fayda bëgg liggéey mais ñun njiit yi ñu am ci xaalis rek lañuy daw luxe rek lañuy daw xoolal seen kër yi ñuy tabax xoolal li ñuy am xoolal li ñuy yor ci oto ñu ñuy yor xool seen jabar yi ñuy def ah di may ay millions ak des milliards mais c'est extrêmement grave léegi Sénégal gépp tey kenn fajootul ku ci bëgg a faju boo amul ay millions doo faju te moom sa moom sa jox ko jox ko ministre ministre bi ministre war ko jox kii xaw ma joxe na ko xaw ma joxu ko moyen moom amul waaye nag bu mooy amul lenn moo mën am man docteur laa damay faj sama conscience mooy du ma wàcc xool kii mu dee tey ñoom xam nañu ni lii bu lii amul lii day am docteur ñoo gën a xam ni kii bu ñëwee defaloo ko lii lii day am mooy boo ko faju mu dee way yàlla mooy rey na képp waaye nag am na foo war a jaare mais am na ba am na dund yoo xam ne dañ koy accourté te docteur ñoo koy accourté dañu waxante dëgg négligence la dañuy demandé Macky Sall mu jël ay responsabilités président yow la ñu fal yow la yow la ñu yaakaar nga jël say après sanctionné médecin yi lii ñu def du yoon il faut nga wut ay responsable yoo xam ne da nga leen di bàyyi ca pale bu la neexee nga fa leen ministre pale fu la neex ñu nekk fa au moins bu guddee ñu jóg trois heures du matin dem ci hôpitaux yi cinq heures ñu dem ci même hôpitaux yi mbir ñu dem ci hôpitaux yi duñu fa fekk benn médecin ñu sanctionné leen ñu leen fay suñu xaalis soo demee ci àll bi ah benn médecin nga bëgg benn médecin nga xam ni day dem day toog këram une semaine duñ liggéey si ah parce que infirmière bi abandonné depuis këram duñ liggéey si lépp ñu bàyyi ku ne def neex ñu am ci les préfets ils sont responsables parce que fonctionnaires, bu nekk département bi préfet mooy chef de service est-ce que les préfets font leur rôle préfet am le droit contrôler médecin yi am le droit contrôler enseignants yi am le contrôle ku nekk ci département bi préfet am le droit contrôler. parce que mooy chef de service dañu wax te lu dëgg am na yoo xam sax nag responsable du préfet ñu jox préfet yi la bi war président de la République la war a nangu teg ko jox ko benn cellule boo xam ne bii day xëy suba wala ngoon wala trois heures du matin mu dem seeti hôpitaux yi ku mu fekku soxna mu jàpp la leeral ko na ni diw heure bi fekkuñu ko postam daa dem ñu jàpp ko wane ko ni ñëpp la ñu sanctionné ko bañ koo fay saleer loolu mooy dëgg nañu xolaat li ñuy def réew mi Macky Sall mënu koo defar sans nous mais moom itam na jël ay fullaak jël jël ay responsable am fullaak fayda sanctionné nit ñi kil moom politicien rek lay sanctionné te c'est pas bien médecins yi li ñuy def nii rafetul xam nga lii ñu nekk nii tey rey nañ fi ay lakk nañ fi ay ay ay ay ay bébé bëkk démboo nit ñi ñu ngi dee nii ah ñu am doom di dee ah kii kii li xam li xam fii tey jii ci Louga gee sénégalais bu ne être humain bu ne war na la naqari ñuy xool yónne ay audition naa ñu ngi woo di laaj ay enquête loolu du enquête du enquête kii du enquête ministère enquête gendarmerie la ak procureur même bu porté wul pour procureur moo war a jël ay responsabilité am dégg naa ñu naa porté na plainte moo warul porté plainte am na crime parce que man crime laa ko considéré am na crime jusqu'à présent crime laa ko considéré nañ dem bu crime amee kay procureur da muy xaarati bu nee lii bu fekkee ni ñoom ñoo tooñ ñu sanctionné bu fekkee tooñ ñu sanctionné mais li jàpp li ma li li jëkkër ji wax laa dégg ak li yaayam wax laa dégg ñoom itam ne wax ñu dégg leen ba mu leer nañ dama ni lii rolu liggéeyu procureur la du liggéeyu enquête ministérielle dañu waxante dëgg lii du liggéeyu enquête ministre parce que ministre bi sax mën naa démissionné te dañuy demandé ministre mu démissionné daa war a bàyyi parce que amul capacité Ablaye Ablaye Diop Sarr wax dëgg yàlla bi fi ñëwee ba nëgëri problème yi gën a garaaw parce que moom porte porté wul affaire médecine wala pas affaire santé moom li ko ñor mooy affaire politique nekk ay ay premier ministre moo ko ñor mais leen ñuru waaye nag ko fi teg tam lañu war a xam ne nag bu ko fi teg ñoo tax bu dee bu deful liggéey dañu ko dàq te moom il est incapable mënul Diop Sarr mënul nañu waxante dëgg warul nekk warut a nekk maire bi warut a nekk kii bi du moins warut a nekk euh, ministre bi ku mun ta nekk maire nooy nekk ministre wax dëgg yàlla nañu wax nañu dëgg lu ñu dal makki Sall moo ñu ko teg moo jël ay médiocre di leen jox ay poste mais nag quand les médiocres sont acquittés ay médiocre il y aura que la c'est ça Sénégal moo bari ay médiocre médiocre nañu choisir médiocre bu Sénégal Sénégal yi choisir des médiocre la médiocrité rek mooy régner te médiocrité du ñàkk a man ñàkk a tële mais boo mënu sax nga essayer être présent mën a koo tee dee mais nga toog fa nga toog fa assisté ko ba mu dee mais nga bàyyi nit ñuy dee yi ngay absenté def loola neex ah kenn bu comprendre même bu mooy mooy d'abord am na bu njëkk ba da fa fañ nit ñi te amoo sax ciseau boo boo boo opéré amoon na fi. mais nag nit sax médecin bu ko tiimee sax day am yaakaar mais bu ñëwee tëdd ci hôpital bi amul médecin bu fa nekk kenn nekk fa nu mu amee yaakaar day dee loolu la ñu war a xoolaat man daal li ma gëm lay wax dëkk bii suñ ko seetaatul demee problème mën naa am te problème dina am ah, parce que lii dafa insister dafa persister da cee yàgg nit ñaa ngi dee par erreur ñu bàyyi ñoo duñ leen sanctionné am ay médecin yoo xam dañuy médecin xëy ni médecin lañu liggéey lu mat ñetti at ni médecin nga te doo médecin ñu jàppale tëj la un bàyyi la ah ñu loolu la ñuy def ci hôpitaux bi ku ñëw ci hôpital boo xëy na ñu mën nañ mën nañ pikir nga dee parce que ña fay na koy def mënuñu ko du seen métier ah fay nekk di pikir yi ak yooyu du seen métier jànguñu ko fen foofu la ñuy nekk ba mën ko ñu ko bàyyi leen ak ñu def ay responsabilité médecin bi daw na sage-femme bi daw na infirmier bi daw na même syndicat yi ñu seen liggéey syndicat si yi syndicat yi gën a médiocre médecine lañ nekk xaalis rek la mais loolu fii ñu toll mu ñuy def man réew la ñu ne ban réew la ñu ne ban réew fii ñu toll nii Sénégal yëpp croisé les bras tey jii lii dafa ñaaw Sénégal dañu war a jóg mu jeex une seule fois pour toutes il faut que ñu dàq médecin yëpp ñu dem wuti beneen liggéey te kuñ ci dàq ñaar fan nga torox gis nga nañu jël suñuy responsabilité mënoo nekk un médecin di liggéey nekk fonctionnaire dem di liggéey feneen médecin ki ubbi hôpitalam nekk hôpital privé ne wuti ay médecin di leen fay. loolu mooy dëgg parce que ni nga fay ko affaire dafa seer médecine dafa seer médicament yi seer na consultation bi seer na looy def dafa seer te war moo te war na gën a mooy seer parce que moo dund nit ñi loo am te wéroo am nga amul sens mais fii ko amul xaalis da ngay dee doo faju loolu mooy dëgg ñu bëgg ko dama yaakaar na léegi Macky Sall bu fekkee yëg na ko moom ah il m'a déçu très sincèrement je crois que moom président Macky Sall moom ma xamoon démb ak bëkk démb su fekkee ne yëg ne lii am ci Sénégal mu couragé le bara waxu ci dara xaw ma Macky Sall ba ma xamoon démb ak bëkk démb Macky Sall ba ma xamoon ministre ma xamoon premier ministre ba ma xamoon président assemblée Macky Sall ba ma xamoon CIS responsable euh, parti démocrate sénégalais Macky Sall boobu ma xamoon di ko jox loxo may jox loxo ñuy taxaw di waxtaan Macky Sall boobu gisatuma ko tey Macky Sall bi ma gis c'est un Macky Sall c'est un baron il fait ce qu'il veut day promouvoir ay milliardaire mais Macky Sall bi ma gis dimbalul baadoola c'est ça Macky Sall ba ma xamoon démb ak bëgg dem du Macky Sall bi ma xam tey tey yaakaar naa ni yaakaar naa ni yàlla rek moo fi nekk képp dong lekk amul keneen ñun ñëpp dañuy dee waaye nag ku fi yaakaar ni doo fi jóge wala doo dee tu te dañ koo jox responsable du tol ni état am réew le Sénégal une république une nation boo mënu nga ni mënoo man kii par man responsabilité bu dee quatre parce que moom lañ jox mooy décret mooy jox ay décret mooy nommé médecins yi moo leen di nommé moo leen moo leen di affecté moo leen di nommé parce que ay cadre supérieur la ñu hiérarchie A la ñu il est responsable de notre président notre cher président comme ça dorons bien mais il nous a trompé d'une manière loolu yi mënul wéy man je en colère contre vous monsieur le président ça ne pas être mais je suis obligé d'être en colère contre vous parce que lii xew ko

régler problème la santé bi fi def fi ay autoroute def fi ay stade def ay stadium def fi santé d'abord la santé d'abord partout la santé pour tous et partout c'est ça mais li ngay def baxna mais santé bi nga wara defar lo fi def defo defaroo santé bi nak man ma Ablaye Fall Maaw lo ma dara parce que je suis né pauvre je suis un pauvre type man je veux je avoir la santé ma famille avoir la santé notre république avoir la santé. santé financière ça ne presse pas santé sécuritaire ça ne presse pas. santé et santé et ça ne presse pas santé bu ñor mooy ku ne am la santé ba tuddee pour tous pour le programme que jëw kat yow doon laa la paix je vous remercie